mbokki Sénégal lamb dafay dekkiwaat le 4 février ci arène national Gaston production ne damay indiwaat claf ci la ndaanaan yu mag yi jaaree woon yéen a ngi koy fàttaliku. mbokk yi ren jii nag Gaston production jël xale yi gën a ràññeeku ci seen génération du xam ngeen caatu yoof ndaanaan bi moom la jël daal di koy boole ak njaaytin gàmmu gay dina fa jàkkaarloo ak caatu yaraax mbokk yi Doudou Sané jàkkaarloo fa ak njaga doole booy jaxaaw dina fa jàkkaarloo ak garga waaye mbokk yi Gaston production ne du yem foofu bés boobu faaw ñu bootal ko grand combat bu am maana Zarko doomu Grand Yoff xale bi ñëw perturbé lamb ji yëpp doon daanaan kullu fadilin la Gaston production jël daal di koy boole ak l'espoir de Guédiawaye ñaa bu ndaw xale bi nga xamante ne jàmbaar la ndaanaan la champion loolu yëpp nag mbokk yi ngeen mën ko am en live pay per view ci seen affiche point com 8 virgule 99 euros dong nga mën a seetaan lamb ji en exclusivité ak ay image yu amatul fenn cey Gaston production bu fekkee mukk fu lamb di jooyee ci gën a gaaw KPR transfert local la ñun ñoo ko moom. di ci soñ ñu Sénégal yëpp ñu consommé ko. Sénégal ka fay kan ngi yegg si naa. doomu ndey moo daan ak jamono kii bis bu ne bis lay fay Modou Baye lii mu def daa rëy lool ku ne xam ne ni bi may ñëw sànq liggéey bi koor laa fay indaale damaa naan kafe rek bi ma yëgee ne drapeau bi rek fi ñu ball dama ne leen lu ma jàpp dama ko bàyyi kàlla bi topp ci. bu géwël dinaa ko waxaale ndax ma nga ban Tamba TV bi doon wax loolu baax Balla. Hmm. waaye Balla ma lay xamal drapeau bi ñu la jukkale bis la mu mag ndax Kaari Sadam ak Ngel Jol kenn ku ne bëgg naa bëri seen drapeau. muy bis boo xam ne nag li ma naan. Hmm. bisu géwél yi la. Hmm. te géwél yi ñoo dàq ñaan waaye ñoo dàq maye. wax naa ko sànq te li tax ba fonk waa mooy que ni. nee naa leen jii maa ngi leen di sàmm li ma ca see bindaat. ñun ñun mën a maye di leen gaaw a xeexee ndax dañoo bëri jom ndax koo xam ne balaa ngaa jéggi fukki bala ak ñaar tàkk kooku yaakaar naa ko yombul waaye ba lay séeréer bi Modou Bakal nee na bu amul lépp lii jox la ko yi ñaar boobu mën a bi ñi ko mën a tuddee bari na waaye dafa teggi ñëpp ne yow mi yàpp ci doy mu teggi ñëpp ne yow mi dong nga sant ci bisam bi kon bis baa ngi ni yaa ko moom xam naa ne nag waa Ndar waa Sugeer waa Càdd ak waa Mare takku la ni naanaa arène nationale bis mun faa gën a bis bii te yaakaar naa ni bis bii tey jii képp ku Kébémer toog na ko tuddee di nga am loo yëg. ba bëgg a xam ne nag nii Modou Ba Fall tuddee ko ko am jom. géwél yee dàq ñaan waaye doo dàq may te duñu cof bis. moo tax ma ba ni booy jàpp jàppal géwél ñi ma may kóllëre fa rawatina na waa Ndar kon bis baa ni ni li muy rëy nii dara jaarewul ko kenn ku dul yow mii. sànq rek suñu plateau bi di def direct rek. Mm. kenn ku ne dégg na sa tur. Mm. ci mbaax gi. ci sënëra bi ci yaru bi ci coloré bi kon loolu moo la moon Baay Faal topp ba tax mu ne damay yóbbu drapeau bi def remise bi ma ko loolu jàppoon dañ koy bàyyi ba nga xam ne bis bi cofanu ko ndax mën na noonu wàcc plateau bi rek taas yoo ko dem ak ki la ko tuddee ak li mu wax ci yow ba tax ñu am sañ lu topp la ndax bu la tuddee woon bi daal ne ah kii sama xarit la noonu rek da di daal taas yoo dem nit waaye lu mu wax seen diggantee ñaar lu rafet ak bi ngeen jàppantee moo waral taas yoo jiit lewaat indi fii pour toog la drapeau bi bis nag bañ jógee bis bii ñu ngi ñaan yàlla may nu jàmm may nu fekkee ba nga ñëw ànd ak sa délégation ndax xam naa ne tàpp ngeen yàlla na la jik yàlla bi a waaw waaw Lamine bis la rek comme bis yi en tout cas daal Balla moom du ma ne na waaj man xam naa ne pare na parce que tamit moo xam sag mbaa wala caaro yi ñëpp ñu ngi waaj wax dëgg yàlla Modou Baye Fall moom duñ def lu dul di ko jaajëfal rek parce que ñoom tamit seen diggante yàgg na tey bu demee bu mën ko tuddee drapeau ak cant la parce que tamit jóge Sénégal dem ne séréer yombul saa boo fa demee ñu bëri dañ lay daw mm. te yaakaar naa ne tey ba mu fa demee bu ñaawoon tey lii du am kon nag teraanga teraanga rek a koy fay mm. Balla aussi tamit nekk nit ku baax man keroog bi ma ñëwee fii ba soxna si jàpp ma ci saal bi avant ma léegi yaa non keroog Lamine xaw na ma dee. da ngaa jaawale ginaar yi bëri na boisson yi bëri na xaalis bi bëri na keroog daal damaa kontaan trop trop trop macha allah. di ko ñaanal daal moom li mu bëgg moom tamit moo ko xam yàlla na ko suñu borom defar. bala tamit di ko jaajëfal bu baax wax dëgg yàlla nit ku baax la. gis ngeen keroog Eumeu seen dafa nekk si contrat sax mais dem nañ ba këram ñu isansante ay numéro toog ñoom ñaar ñu waxtaan. lu mu gën a bëgg parce que fans Eumeu Sène la ci fans yu njëkk yi. Eumeu Sène aussi tamit rafetlu ko trop trop li nekk si contrat moo tax mais bu contrat bi passé Lamine. incha allah tombé mu jógewaat vacances ñëw fi. dinañ fa àndaat. parce que Eumeu Sène tamit ñëpp xam nañ ne ku man supporteram la. ku man nitam la. na ci maa ci wax moom. waaw Eumeu Sène. waaw nga bëgg démb nga démb vraiment jigéen. Oh. kooku Binta Badiane ne yaayam. Assane nga may baayam. kooku dama ko. bi Pikine nammeeruwaat ca Mouhamed Ndao Tyson yaa ko te combat mën tëgg na rëy maa daan Balla Gaye deux deux fois combat mën tëgg na rëy maa daan Gris Bordeaux combat mën tëgg na rëy maa daan la dëggeen mi ci làmb ci demb ko bëgg demb ko dem vraiment jigéen Binta Badiane yaay mbokku ndoyu Pam Ngom mbokku ndoyu Souleymane ak Khadim kooku jom rek lay wéttalikoo daa tom li na daan daan ba pat waaye kii sànq moo di faa daa waaye faa daax moom socc moom mooy bi ma demee Allemagne mënoon a dem hôtel mënoon a dem ci poxool daf ma genn golo nag gudd na waaye loo ca laal borom yëg ko boo terlee Modou Ba Fall teral nga ñun ñëpp ndax tey bu ñëwoon Allemagne bi woo foo la nga jot boîte vocale mbaa nga ko damaa jàpp oo ma jot kon it day ko defal ci teraanga lépp yëg dal ko ah na sa jàmm yàgg dama seen nag ñu ngi ko cee xaar nag xam naa ne koo ma seen nga wuyu yàlla na sa jàmm yàgg ah ndeysaan mi ngi noonu cëy lemal xam nga ne lii wax ma dara yoon pile pile Balla waaw Balla léegi laataa loolu Balla li teraanga la Modou Baye defal sa biir bokk fekk la sa biir kër lan nga yëg. waaw euh, danaa ma sant yàlla. jëm bi sallallahu alayhi wa sallam. sant samay ñaari waajur euh, damay sant bu baax Modou Baye Fall. te euh, di ko gërëm ci li mu def. Modou si famille bi la bokk. ndeysaan. boo gisee sama rakk bu jigéen bi aw Cheikh Mbaye ñu bokk ndey ak ni mu ko nuyoo a nga xam ne ci kër gi la bokk. comme ni ko waxee tey ci benn émission. dama ne Modou. bett na ma waaye bettu ma mm-hmm. sama kanam la maa ngi dafa def nag loo xam ne dafa rëy si man mm-hmm. parce que munoon na ni grand balla dana daan toog di naan ataay rek defal ma dara mm-hmm. mais xëy na am na loo xam ne jàppee na ma ko moom ba tax mu def lu rëy lii euh, du dañuy kontaan trop te di la xamal ni parce que nu ngeewal yëpp ñoo ngi waaj laa ilaaha illallaah xam naa ne waa ndaa takku nan de loolu moom maa ngi ko koy wax bu baax a baax a baax. Hmm. parce que ñun ñoo leen ñoo wàcc. waa Caro it ñoo wàcc. laa ilaaha illallaah. nee naa ko xaw ma loo suñuy dugg xaw ma waaye dañu fexe ba ni ñi <laughs> ah ñu teel a xëcc place de ndax bu ñu ñëwee toog. ngeen xam ne waa waa Ndaat ñëw waa Caare ñëw nañu. ndeysaan incha li ma jaax mooy balaa ngeen di dégg rek fukki ma ak ñaar tàkk. kon ku yow xam ne ci sàbbe jaay ba. waaw waaw waa gis nga ko de wallaay wallaay. man jënd bari fetal di ko jaay ah? ñëpp bu bëgg dégg. ay bal di tàkk. waaw man teema jaay ma teema jaay ma day mi ñëwoon geer ba. ah. waaw di ci mënti daal. Mhm. mooy ko ni Modou li mu wax sànq rek boo amul lépp li defal la dëgg la parce que drapeau bi bi mu la koy tuddee cër la bu leen seq yéen wallaahi dëgg la wallaahi dëgg la ndax maanaam yaa doy nag dafa rëy ñu mën a tuddee tuddee bari na hmm. waaye bu la tànnee hmm. loolu mooy bàyyi na la xel dëgg seen diggante nag dañ koy bàyyi ak Serigne Touba ak Cheikh bu sàmmal leen ko ba nga am ci ndam dimanche daal xam naa ne hmm. ku yam daal jaay bali fetal ndax xam naa waa daata xew yi ñoo xam ne balaa ñoo dégg fukki bal tàkk ku yëpp daal jaay bari xetal. démb démb démb lu ma ngi woon kër ministre Seydou Guèye. dafa dafa dafa gis publicité ci télé bi. Hmm. dafa ma convoqué maag sama rakk ñu ànd ñu ma ñëwal. Hmm. ndax lii yëgunu ko. Hmm. moom ma ne ko wallaahi dama wut leen noppal rek. mun ma ñëpp laa koy wax li waxal gars yi dinañ ñëw si incha allah. donc xam nga photo yaa ngi fi dama ko dama ngi ci portail dama ko doon génne léegi wan la ko. li ma sol nii moom laa sol. donc nekkul lu ndaw. waaw bis bi moom. waaw du ndaw dina xam ne tuddee na tuddee na waaw doomu géwël. yaa ngi borom Allemagne. macha allah Allemagne bëgg yoon dem Allemagne. sant na bu baax pour yóbbu pour yóbbu téléma maa ngi dem waaw waaw a <laughs> waaw mais moo jaay xam ne loolu naa ne. moo jaay ñu wax na ko plateau ba waaw lu leen loolu loolu naa mën a. bu subaa defar ma sama bi. waaw ñu loolu ñu ngi bu baax di nuyu di nuyu kër gi ñu fi fekk yëpp soxna yi yëpp di nuyu aw seex moom xam nga suma mag la ñi nga xamante ni wax dëgg yàlla nit ku baax la et yar ñu comme ni ko baax la waxee ñu nekkoon woon ci koñ bi doon jàng mi ci di ñëw di toog ñu fekk ñuy toog daan jóge voyage boobu yaakaar naa boo jógee Europe ñëw da ngay yëkkati say mbagg xam nga booba kaa moom loolu bariwut de bariwut wallaay bariwut da ngay xam nga sol sol daal jaraxam ñëw toog ci ñu waxtaan xam nga loolu doo ko fàtte quoi. mu nekk nit ku baax nekk conseil parce que yaakaar naa xale si bi muy nekk xale loo ko ji rek. du ko fàtte laa wi diini bu nekkee lu baax du ko fàtte bu nekkee lu bon. tey ji bu fekkoon amoon na nu nekkoon na ñun peut-être. mun yàlla mënuma suturaal ma voyage dem Allemagne bañ a xalaat moom. Hmm. mais conseil conseil dama doon conseil bu baax a baax a baax a baax si am jom nangoo liggéey kon kooku noonu. ñu ko fàtte si lenn. si mm. lu luñ mën di nekk sentir ne buñ ci àndee ak moom dinañ ci gis avancement wallahi dañ koy def te biñ déparé fi jógee dañ jaar Paris am nañ fa ay mbokk am nañ fa ay mag. mais dañ toog hôtel. fay fa mu nekk di jour ñu fay ko chaque jour cinquante euros. ba ni ñu fay jógee bi ma man ak rakkam ñu doon ànd def def ñu Mourou Mbaye ñu jaaroon doo màggal jóge fa nekkaat këram xam nga lépp rafet. te tey euh, yaakaar naa dem nañ fu nekk si àdduna bi suñ demul bëriwul fu si nekk suñu borom bu ñu suturaal ngi dem ngir suñu liggéey mais nag fu ñu dem fu ñu demoon fu si nekk am na nu ñu lay xoole wala benn fan bu nekk si kër gi dinañ xam fii mën nañ fee yàgg wala mën ñu fee yàgg te fee wallaahi bi ma fay jógee bugguñu woon ma dem Modou Mbaye Amina jabaram ñoom ñëpp billaay téemo léegi moo si mujj dañ may woo ba damay ruus mm-hmm. kon nit la ñoo xam ne ay nit yu baax lañu ay mun naa ne li naan jiwal bu géer gën am na. dama koy firndeel si Balla Mbaye. macha allah parce que nit la ki nga xamante nii bu ñu neexal ñu ni eh, ay géwal lañ xaaruñ kii mais teraangam ak alalam ci ay géer la koy dimbali. Hmm. ay mbokk géwalam. ko ñaanal yàlla. Hmm. xam nga yàlla daw ko jàmm bu baax a baax ba yéene bi am si njaboot gi jiitale. suñu borom hmm. mottali ko. parce que dafa am loo xamante ni dafa yombul. nekk ci kër famille nekk taaw xam nga macha allah yor ay rakk njaboot. te terewul ñëpp lu uuf leen kenn xàmmewul ki nga bokkal ndey ak baay ki nga bokkal ki nga ki nga bokkul ndey ak te loolu vainqueur moo ko mën. Balla jàmbaar la ñu koy sant bu baax sant nag aw Cheikh xam naa xaw nañ gëj a gisee nag loolu sax mais moom sama sama sama sama lonko la woon quoi sama lonko la woon moom nit ku baax la quoi vraiment nit ku baax la seen yaay tamit nekkoon nit ku baax nit ku baax ki nga xam ni tout le temps bu ma gisee dafay mel ni doomam jur la gis wallaay seen kër daal zéro faute ñoom ñëpp ñoo ngi leen di bëggee ku su mel ay Ablaye Mbaye Ndiaw Mbaye Lala Cheikh Kébé ñoom ñëpp ñu leen bëggee di leen ñaanal jàmm yàlla def leen jàmm bu baax drapeau bi nag moom day continuer di def incha allah ba deuxième édition. taalal ko jox ko ba deuxième ko jox ko mu jub taxaw nga jox ko ko. photo li fële lu soro la photo tubaab daa bëri caaxaan. wolof Sénégal. Sénégal daa bëri caaxaan photo. xam nga ne lii kenn du ko falsifié. ku ne xam ne lii nii. lii archive da koy bind. waaw oui. bu ne xam ne ni drapeau Balla Mbaye la lii moom du lu ñuy sàkk du lu ñuy sikki sàkk. Mm. wàcce boo ci amee kàddu rek ci drapeau bii ñu leen defal. defal ko seen bopp ndax Modou Baye Fall këram la ñëw. Modou Baye Fall danaa buñ sant yàlla julli ci yonent bu tedd bi ak seen ñaari waajur damay sant sama mag ba pare Balla Mbaye moom soutien de famille la moom jooyu ñu bàyyi. defe naa dafa taxaw ci tànk bàyyam boobu amagul 17 ans yor ñu yiir ñu toppatoo ñu léegi-léegi hôpital la jóge waaye danoon def du leen ko wax sama yaay ngi doon mais dañu du leen ko wax ndax bis bi daf koo ñor mu baax bëgg ñu respecté ñu ay rakkam lay fawal ay ñu ñu ñooy ay moromam bala dinañu toppatoo dinañu jox xaalis dëkkal nañu fu rafet dinañu jox lekk bu neex dinañu yónnee sama yaay bu feebaree bala gaaw na ci duñu xiif duñu mar duñu rafle amul nag mbokkam bu xiif fa man maay seex ñu ñoo topp ci moom man ak aada xiif ñu famille bi du kenn nag comme war a dimbali rek ci rek famille bi dimbali na ñëpp ba ci suñuy doomu baay ñëpp ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér du sut bàyyi ba fante desa bàcc drapeau bi nag mu jaay yow moom yow amuñu lu lay wax xanaa ni lay ñaanal yow mu ñoo la yar nga yoroo ci koñ la juddoo fa màggati soo faa xeex soo faa xuloo mosoo faa wax lu ñaaw soo ko fa defoon tey doo tudde bala drapeau waaye ñun ñoo la yaa bi ma gisee léegi rek maa respecté jóg ñu lay ñaanal nag drapeau bi yàlla nekk ay drapeau drapeau te saa yoo ko indilee bala nag ñi da koy jël barke sëñ Touba. mais nan ngeen nar a ñëwee dimanche. parce que mm-hmm. arène nationale nag. takku nañu. xam naa ni <laughs> takku moom tey ji laa ñëw woon damaa ñëw tombé sama yaay fee ba tey laa ñëw man bis bi tey ji laa vendredi ba mm-hmm. sama jëkkër dinaa ko may ma fekk. a mbokki Sénégal lamb dafay dekkiwaat le 4 février ci arène national Gaston production ne damay indiwaat claf ci la ndaanaan yu mag yi jaaree woon yéen a ngi koy fàttaliku mbokki ren jii nag Gaston production jël xale yi gën a ràññeeku ci seen génération du xam ngeen caatu yoof ndaanaan bi moom la jël daal di koy boole ak njaaytin gàmmu gay dina fa jàkkaarloo ak caatu yaraax mbokki yi Doudou Sané jàkkaarloo fa ak njaga doole booy jaxaaw dina fa jàkkaarloo ak garga waaye mbokk yi Gaston production ne du yem foofu bés boobu faaw ñu bootal ko grand combat bu am maan ndaanaan Zarko doomu Grand Yoff xale bi ñëw perturbé lamb ji yëpp doon ndaanaan kullu fadilin la Gaston production jël daal di koy boole ak l'espoir de Guédiawaye ñaa bu ndaw xale bi nga xamante ne jàmbaar la ndaanaan la champion loolu yëpp nag mbokk yi ngeen mën ko am en live pay per view ci seen affiche point ko 8 virgule 99 euros dong nga mën a seetaan lamb ji en exclusivité ak ay image yu amatul fenn ciy Gaston production bu fekkee mukk fu lamb di jooyee